<laughs> voilà. talent et compétence. Tout à fait. Une belle chute, <laughs> une voilà. belle transition. On y va et on retrouve le plateau. Aïcha, eh bien avant justement de passer sur le reportage fait, on va revenir sur l'importance de la réinsertion professionnelle. Qu'est-ce qu'une réinsertion professionnelle justement Alors, euh, on, euh, bon, ça, ça va venir en dernier, en dernier lieu. On va parler plutôt, en fait, avant de parler des réinsertions professionnelles, il y a d'abord eu... Oui. dugaat insertion. yaay mm. réinsertion mooy nga dem chômage nga ñëwaat. nga ñëwaat wala nga bàyyi sa liggéey dem di ubbi cabinet wala pour duggaat en fait dans le milieu professionnel. Mm. donc là on va parler d'insertion professionnelle parce que ñëpp xam nañ ne en fait l'insertion professionnelle des jeunes c'est une politique déclinée par l'État mais qui est en fait difficile à gérer ou bien difficile à à conduire ça c'est au niveau mondial dans le sens où on euh, on trouve pas réellement euh, euh, le la solution qu'il faut. Euh, pour que les employeurs wala ki nga xamante ne génn génn euh, <laughs> université wala génn am sa diplôme mm. euh, dugg ci dans le dans le dans le secteur du travail mm. qu'est-ce qu'il faut en fait qu'est-ce lan moo tax te c'est quoi d'abord l'insertion professionnelle lan moo tax en fait mu métti est-ce que ni niñ koy defee moo baaxul wala est-ce que ce sont les jeunes diplômés en fait qui sortent mais qui ne savent pas réellement lan la ñu bëgg a liggéey wala di dem juste parce que da ngay jëm rek jël sa diplôme dem déposer ko ne danga bëgg a liggéey alors que waxoo réellement lan nga bëgg a def wala que bi ngay génn am sa diplôme xooloo exactement fan la sa talent nekk ak fan la say compétence nekk parce que loolu euh, ça loolu moo tax def stage baax parce que stage moo lay permettre nga xam soo amee sa diplôme après lan yan compétence en fait nga acquérir ci sa stage parce que stage tam loolu lay loolu lay jëriñaa ah, am compétence ci un milieu ou bien euh, disons benn pas milieu mais benn activité wala benn tâche au sein en fait ci diplôme bi nga am hmm. donc ñu ànd se ki nga xamante ne mooy professeur Baguidi qui est euh, coach euh, en intelligence professionnelle euh, à l'IAM ñu seetaan ko léegi Mor si c'est quoi l'insertion professionnelle Bonjour à tous, euh, je m'appelle Joël Piwiliam Maguidi et je suis expert coach en développement personnel, développement professionnel et en intelligence management euh, au Sénégal euh, et à l'international. Donc insertion professionnelle quand on arrive à intégrer le marché du travail en ayant euh, un emploi qui nous satisfasse. je vais étonner tout le monde, mais il n'y a pas de véritable problème si on s'y prend bien. Par contre, il y a un gros problème et un problème persistant quand on s'y prend mal. Je vais donner un exemple. Des gens disent qu'ils font des études supérieures. Mais lors de ces études supérieures, euh, qu'est-ce qu'ils font exactement Le marché du travail. Il a besoin que, à la suite d'études supérieures, on ait appris au moins un métier, un à plusieurs métiers. Si vous notez bien, On ne vous parle jamais dans le cadre d'études supérieures de métier. On va vous parler de filière. On va vous dire par exemple la filière euh, marketing, ou on va vous dire la double filière transport logistique, où on va vous dire banque, finance, assurance. Alors, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui a fait banque, finance, assurance, ou qui a fait transport logistique, ou même qui a fait marketing, qui sort et qui dit je suis diplômé de l'une de ces trois choses, marketing, transport logistique ou banque, finance. Mais il ne peut pas trouver du travail. Quand il va sur le marché du travail, il dit, voilà, est-ce que vous pouvez me prendre L'entreprise lui dit, mais vous avez fait quoi Qu'est-ce que vous savez faire Il dit, mais j'ai fait marketing. J'ai fait banque finance, j'ai fait transport logistique. Personne ne peut recruter quelqu'un avec marketing, banque finance, transport, euh, transport logistique, banque finance, assurance. C'est pas possible. Pourquoi? Mais parce que vérifier, quand on recrute, on dit je recrute un analyste financier, on dit je recrute un On dit responsable de gondole, on dit pas je recrute un marketicien. C'est quoi la différence pour les profanes? Mais marketing, c'est un ensemble de métiers. transport logistique c'est deux ensembles de métiers banque finance assurance c'est trois ensembles de métiers donc on ne recrute pas à partir d'ensemble de métiers c'est très simple c'est très très simple à comprendre je te recrute pour faire un travail mais je ne peux pas te dire que tu vas venir faire chez moi tous les tous les métiers du marketing Ça, c'est le marketing. Je ne peux pas te dire que tu vas venir faire chez moi tous les métiers du transport et tous les métiers de la logistique. Et je ne peux pas te dire que tu vas venir faire chez moi tous les métiers de la banque, tous les métiers de la finance et tous les métiers de l'assurance quand c'est banque, finance, assurance. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre il faut comprendre qu'on a créé les filières juste pour donner plus de chances à ceux qui vont se former, qui vont se spécialiser euh, au sein de ces filières-là, plus de chances de choisir un métier. C'est tout. au lieu de former quelqu'un à un seul métier, on lui dit voilà, on va te mettre à l'aise par rapport à plusieurs métiers d'une filière. Maintenant, toi, tu vas choisir dans tous les métiers là, celui qui te correspond. Après, on a dit, ah, il y a des filières qui ont des points en commun. On peut élargir l'assiette pour faire en sorte que les gens aient plus de choix. Donc, on est allé jusqu'à trois filières. Mais c'est juste pour que, pour que quelqu'un se dise, bon, je suis en train de chercher. Entre le transport et, le, et la logistique, j'hésite il va passer en revue tous les, tous les métiers du transport. S'il n'en trouve aucun qui corresponde à ce qu'il veut, il passe en revue tous les métiers de la logistique et il en trouve un. Même chose avec banque, finance, assurance. Donc quand vous faites banque, finance, assurance, vous devez, pour pouvoir vous former et être recruté, choisir d'abord entre les trois filières une seule. parce qu'une filière est une famille de métiers. Quand vous avez fini pour choisir, vous passez en revue les trois filières, vous passez tous les métiers qu'il a là et vous essayez de vous retrouver. Quand vous avez vu qu'une des filières vous va mieux, vous sortez un métier. c'est très bien. C'est ce qu'on appelle un tronc commun, je pense, en première année. ah euh, ñiy jàng te di jàngale xam nañ ko jàngalekat baa ngi ni dama leen di bàyyaat ngeen pelloo ma ëpp ma ëpp professeur Don Faxa mhm. oui non mais c'est intéressant mhm. d'abord Louisa li nga wax ak euh, prof euh, coach di lu mu wax tam xam nga jafe-jafe mosoon naa ko wax fii en fait li ñuy wax tronc commun mhm. il faut que toujours ndaw yi xam ne par exemple booy def banque finance assurance lan mooy métier du banquier lan mooy le métier le métier du banquier maanaam lël mooy liggéeyam dëggantaan. Mhm. mooy denc xaalisu jàmbur yi. Mhm. ak nu mu koy dencee nu mu koy denc euh, ba ci def bénéfice moom boppam. Mhm. c'est ça banque. bu ñu nee droit droit mooy lal fexe bu nit yi ñu juboo bu ñu xuloo nag nañu leen réconcilier maanaam nañ jubóole la ci njëriñu askan bi société bi communauté bi. donc c'est tout ça après maintenant nga nekk commissaire de police nga nekk avocat c'est des déclinaisons Très mais souvent euh, yow boo defee par exemple la comptabilité nga jàng fiscalité wala ñu wax euh, benn employé nga xam employeur boo xam ne jàngul surtout Sénégal parce que problème Sénégal mooy la souvent dañuy sukkandiku ci jàng nasaraan yi mm-hmm. fii nii il y directeur de ressources humaines absolument il mille dafa am quinze mille entreprises yoo xam ne mun nañu joxe contrat de travail mm-hmm. Sénégal quinze mille rek ci quinze mille yooyu sept cent yi ñoom ñoo mën a def des vrai contrats de travail. Mm-hmm. donc su fekkee le marché de l'emploi n'existe pas booy dem gis ñoo xam ne ils peuvent recruter dans l'informel il faut leur expliquer clairement mm-hmm. lan mooy sa njariñ ci seen entreprise. par nga leen su ma ñëwee sa entreprise. doo am dootoo am problème ak impôts et domaines. Mhm. loolu ça veut dire que tu es un donc nit ki mën na justement d'embauche pour l'insertion professionnelle avant la réinsertion. pour revenir dans le vif du sujet. dafa am ku ma posé question xam naa dafa dégg li ma doon wax coulisse ni euh, banque finance assurance laa def alors en commun justement on a envie de tout prendre. mm en commun à l'université. en première a Euh, euh, Luisa Diandi stage bu ñëwee man dama di compter xaalis jàmbur yi affaire yi daal de saf ma leneen ma ne leen man yàlla bindu ma pour may compter xaalis jàmbur di ko dénkaane la tax tey pour répondre justement à ki nga xamante Bokar Aw mhm. euh, parce que justement en cours même de la de la quête de la compétence professionnelle mhm. on se rend compte de son talent on se rend compte de sa passion et finalement on finit par valser et on finit par changer mais professionnelle. Donc c'est important de choisir la filiation qui, qui, qui, nous va le mieux. Absolument, c'est en en fait le but, c'est c'était de faire comprendre aux gens mhm. euh, qu'il faut que l'insertion professionnelle c'est une transition entre euh, l'école et le travail. Mhm. C'est un processus de transition. Donc, du coup, il faut au cours, de l'année scolaire ou bien au cours du cursus scolaire, d'identifier les entreprises, yo déjà ciblé nga leen. Mhm. il faut des cibles. tout des entreprises yoo xamante ne ci li ñuy liggéey ci sa secteur bi nga xamante ne moom ngay jàng ñoo ci gën a xarañ nga dem xool problème mu entreprise yi am avantage inconvénient yi nga xool ko xool ne kat yow il faut nga jël ma stage ndax boo ma jëlee stage dinaa la mën a defal lii ak lii ak lii il faut que ça soit clair il faut que ça soit aussi d'où l'importance en fait de bien préparer les lettres de motivation. tout motivation de pour ñoom copier coller la mais motivation énonce clairement en fait que tu connais l'entreprise et que tu sais en fait les failles de l'entreprise mhm. xam nga entreprise yi limite bi là là dans ce cas il faudra faire une recherche mhm. donc c'est important que les gens soient structurés xam li ñu bëgg ah. loolu mooy continuité te tey ji ki nga mhm. xamante ne moo lay jël gis fi nga jaar stage bu lay defal entretien di nga ko ne kat man ba ma ñëwee fii liggéey naa lii et que sama maître de stage dama ko sax euh, dama ko dama ko yombaloon liggéey bi. Mhm. dem naa ba ba ma liggéeyee par dama ko naan yóbbu ma ci département bi mën naa fee def lii. donc kooku entreprise bi nga xamante ne yow danga nga ko amal njëriñ sur si plusieurs départements kon c'est c'est une entreprise boo xamante ne à chaque fois boo waree def stage da lay jëlaat donc il faut que nit ñi xam ne que l'insertion professionnelle. Euh, du tronc commun nga fay duggee. Mhm. mais il faut. que ça soit aussi le cursus soit cohérent en fait. wax nga moo sonal étudiant yëpp. Ah. bari wax nga ko RH baa fi logistique baa ngi fi. comptabilité bi marketing baa ngi fi lépp ngi fi. Mm-hmm. waaye da ngay dem ba da ngay mm-hmm. nga war a dem donc moo tax c'est très important li nga indi nii comme leeral donc bu fekkente ne da nga spécialisé wu ci benn domaine dafay nga commencé boo ko teelee commencé da ngay gën a acquérir ay compétences ndax bu fekkente ne da nga def première année deuxième année trois ans yoo xamante ne si sa même euh, même programme bi ngay suivre donc day gën a tax nga gën a performant boo demee ci entreprise yi di nga mën a taxaw bu baax a baax loolu dafa am solo te étudiants yi dañuy wut stage nag bëgg na ñu yomb. c'est important c'est pour ça maintenant que aux entreprises dañu leen di oo yi ñuy découvrir seen bopp. Mhm. gis nga tronc commun ñu bëri tax na ñu ñu tànn ay corps de métier wala léeg-léeg sax kumpa am na foo xamante ni y a des corps de métier stars pendant une période. Mhm. amoon na tey jii ku jug dee def présentation ku jug dee dem jàngi marketing ou intelligence des affaires. Mhm, c'est très précis en ce moment duñu xam lu mu doon mm. justement parce que tout simplement on tronc commun euh, on leur donne dañu leen di sol lépp et c'est normal ah c'est normal ñu sol leen lépp pour ñoom ñu xam mm-hmm. euh, xëy na ci lépp ñu xaw am ci tuuti xam-xam mm-hmm. c'est important mais euh, à partir de la deuxième année il est important que les écoles puissent avoir des collaborations avec des entreprises respectables mm-hmm. où les étudiants vont en stage mais nañ jël système Europe bi dama ko fan mooy da ngay def trois semaines ngay liggéey une semaine ngay jàng te bu boobaa da ngay xam yow li nga bëgg di nga a reculer di nga changer bu fekkee ni du sa corps de métier di nga économiser loo say waajur parce que fii nos parents yi galèrent quand même pour nous payer le cursus universitaire. mais noonu Asma je pense que booy dem nag da nga war a jël yoon boo xamante ne da lay leer ni bu fekkee Thiès ngay jëm da ngay egg Thiès mais boo tàggoowee ne cees ngay dem ba si nga wëlbatiku ne Dakar ngay dem doo teel a yegg te tronc commun yi da ngay gis tey jii ni dafay nekk ba si yàgg rek ne bëggatuma bii ah. changé naa xaaral ma mm-hmm. dem feneen loolu tamit da lay que entreprise yi gën a ibbeeku bu ko defee itam stage yi di mën a am mais tey jii am na ay exercice sax yu ñu jox étudiants yi mënuñu ko def parce que entreprise boo fëgg bu fekkul ni sa école moo bind déjà dañuy foog ni xëy na concurrence bi moo ñëw di leen getteeg di leen surveiller donc lu metti la pour étudiants yi encore une fois ay problème la yoo xamante ne Louisa je pense que buñ ci doon wax tey ba ngoon duñ ci euh, jóge mais baax na déjà ñuy poser la débat bu ko defee réflexion bi ibbeeku Justement, en tout cas, merci beaucoup pour la thématique. Alors, d'où l'importance du sujet. Euh, donc, pour l'insertion, il faut savoir quel corps de métier nous va le mieux pour aller travailler. Il faut que entreprise yi si on a bien compris, bien sûr ñoom ñu ubbil ñu seen ay buntu ñu teel a dem ci ñoom stage. bu ko defee même bu dee c'est pas rémunéré après aussi les entreprises peuvent avoir peur parce qu'à chaque fois on te demande ouais euh, même bu dee stage la mm-hmm. danga nga war a joxe koppar wala fay ma salaire xale yi foofu dama leen di interpeller Louisa Diandi mooy nañu nangu uti xam-xam te xam-xam yow yaa koy fay pour am ko doo xaar ñu fay la pour joxaat la xam-xam na ngay nangu jàng ci taataa bi et justement moi personnellement pour ce corps de métier j'ai appris sur le tapis oui. avec Maïmouna Ndour Faye je ne le regrette pas mm -hmm. ah, oui oui euh, en un moment euh, euh, bon euh, dem outil stage euh, l'aspect pécunier ne compte pas mm -hmm. ce sont les compétences qui priment sur l'aspect pécunier surtout que yaa ngi ci yoon di jàng deuxième année c'est rien du tout donc du coup mhm. euh, dinañ ñëw aussi comment trouver un stage mhm. c'est vraiment mu ci remercier monsieur Baguedi bu baax a baax mhm. dina ñëw aussi comment trouver un stage et puis ça va être voilà de façon continue comme ça nit ñi dinañ xam insertion professionnelle lan la. Mhm. xam nañ ko tey. Mhm. comment trouver un stage loolu yëpp ci insertion professionnelle Justement, en tout cas, merci beaucoup. Haj Mansour Diop, il va venir justement pour conforter Madame Cissé euh, dans sa chronique. Ce sera tout à l'heure euh, pour parler justement des aphrodisiaques chez les hommes. Il connaît parce que les plantes, c'est sa base de données. Macha Allah bu ko defee suñu góor yi wala suñu jigéen